mbokk internet bi Iba Kane TV ah, ñu ngi toog ak fekk Bathie Seras fekk ko entraînement bi Bathie Seras tey entraînement bi saf na sàpp si wala waaw saf na sàpp ah. mais safagul nag après mais entraînement waat de ah. waaw dëgg gëj a entraîné xanaa waaw ah, maa ngi entraînement chaque jour maa ngi entraînement. Ah, chaque jour chaque jour maa ngi entraînement fii. chaque ah. jour chaque jour waaw. chaque jour yaa ngi entraînement. waaw mais question bi gars yi yëpp di laaj. rëmbaru hmm. bàcc ndax ren dinañ espérer nañ ko. parce que toog nañ hmm, wax wax naa ko ñu bëree bëree bëri. laaj naa keroog keroog rek bi ma ñëwee stade loolu laa la laaj. combat laay laaj. waaw mais du ma dem si kër promoteur yi du ko. dëgg la xanaa garçon bu ko déggee. Hmm. papa garçon bu ko déggee war na si jàpp. wala yeneen promoteurs yi. war nañ see jàpp. dëgg la laaj naa combat yu combat. gars yi dañ lu ma si mën Bakar waaw. tey sa yoon sa la tey foo sa retour kan la war a nekk. ah xam nga. la wax sa diggante ak Zoss. waaw Zoss soxla naa ko trop ñu ko joxoon dama koy jël. si saa si waaw. Mhm. maag Zoss waxtaan nañ si bu yàgg. waaw avant avant lamb yi passé yëpp. ay deux waxtaan nañ si. waaw xam nga mhm. war a jël combat bi. mais amuñu promoteur bu ko. bu ko tëgg bu ko tëgg. dëgg la waaw ah. mais yow daal retour bëgg nga ko ren. damaa bëgg a bëri Iba bëri alxuraanu karim li ma la wax bee passé stade. waaw loolu laa lay waxee. Mm-hmm. moo tax may ñëw entraînement. waaw moo tax may ñëw ni entraînement. Mm-hmm. damaa bëgg bëri stade nii. dama bëgg a bëri yaram mooy laaj làmb. moo koy laaj damaa damaa damaa toog. waaw xam làmb li muy dawee. xam ni si bëree. <laughs> mais ñaata làmb moo fi am. bëri nii de. yàlla mooy dogal loolu damay ñëw nga daan ma wala ma daan la. waaw samp ay. ay mbir booy li nga waxee sànq rek. damay affaire affaire sa indo bi. waaw ñëw. dawal kaboy kaboy. Uh-huh. gars yi ñoom kaboy nañu kaboy kii. Uh-huh. bu ñu taxee si stade bi. bu ñuy bëre. Mm-hmm. dawal indo bi loolu la demee quoi loolu laa lay wax. te mm-hmm. damaa xoolaat laa mujj bu baax a baax a baax xam nga ma xoolaat leen ni ñuy bëree. Mm-hmm. ñi si bëree yëpp ma xool seen combat yëpp. ma xam ne instant yi ni moom xam su ma ñëw aat si làmb dina garaaw trop lu bëree bëri tam bëgguma wax wax. wax naa loolu laa moom ni xam nga euh, bëgguma wax quoi bëgguma wax yenn wax. waaw mais ñu waxtaan tey xam nga mhm. stade yi. Ah, aja gaynde incha day tane wa waaw waaw Iba li ma toog six ans laa toog bëriwuma. waaw mais am na mbër yoo xam ne toog nañ quatre ans. cinq ans sax bëriwuñ. loolu moom lu ma si wax xam naa lu mu demee xam nga. Euh, li ma gis làmb li ma bëriwul lépp. Hmm. dama gis am na mbër yoo xam ne ajoon nañu si. Hmm. si làmb ji bëgguma tur ay. ay tur mosuñu maa aj. mosuñu hmm. maa interdit sama bër damay bëree pare. su ma bëree pare suñu ma daanee hmm. su ma daanee damay tourné waat ñibbi suñu sama biir hmm. sama biir kër hmm. laay ñibbi mais lamb li si am fan yii yëpp comme li ñu ma a waxal chaque jour ñaan bàcc nangam sangam mooy ànd ak bandi yi di ànd ak nangam sangam ñu ngi koy gis si lamb yi yëpp maa ngi si gis gars yi ñu ngi sàcc scooters yi di sàcc lépp lamb ak dama ko ba yàgg a wax tam lamb ak loolu mu ñoo ànd da ngay gis sax ni ki ngénte koñam koo xam ne boo la fay wut wala mu ngi lu mu lu foofu si si ngénte li làmb tam noonu la loolu la demee léegi nag man ba may bëre gars yi waxoon nañ ma lu nekk mais lu tax ñu la doon étiqueté bandi bi moo ma jaaxal de moom ma jaaxal de mais yow lan la ah moo moo ma jaaxal Iba Kane yow laa koy laaj lu am yëpp nag mhm. journalistes yi ñoo koy def mhm. journalistes yi mun nañ defar mun nañu yàq mhm. si journalistes yi la journalistes yi mun nañ la defaral mun nañ la yàqal waaw man nag ku ma xam lu mu la defal lu mu la yàqal moo ëpp comme li ñu la étiqueté bandi nii waaw waaw loolu tamit yàqal na ma si beneen côté. waaw mais ba ma toogaatee si côté làmb ma toog nii. waaw damaa gis loolu di dawaat si biir. Mhm. làmb ji damaa bëgg a tudd. Mhm. tur ñu bëri ñu ngi leen di wax fii fii kuy bëre. Mhm. bu bëgguma tudd tur bëgguma tudd seen i seen i koñ. ñu bari ñu leen di wax. booy ay bandi nañ ñii bandi nañ. loolu la nañ doon wax si si man. même mbër yooyu ñuy tam sax ay bandi ñooñu duñu ay bandi de. mbëri bu ñu xasee ba bari bu ñu daanoo seen seen oto bu leen indi nañuy dugg. dem wa di yàqamtee si seen i seen i ngemb fan la ñuy jugal seen kër la ñuy la ñuy jubal du ñu xam lu xew si stade bi ma sama làmb yëpp nag noonu la demee musuma bëri su ma bëree su ma daanoo damay sola damay dugg si oto bi ñëwaat suñu kër suppeeku ñi may ñi may seet si ñëpp sama sama kër lañ may seetee mais leneen li xew si tibiti yëpp man nañ ko doon kiiwee. man loolu lu dëgg te mo am ci lamidi ba légui lamidi passé ni bé passé. ñu koy wane ci koli ñu koy wane ci koli yi. la ñu koy wane ci koli ñi ni jël instructeur yi jàmbur yi di si jël lu nekk ñu ko ci jël. lool nak mo dafa yaa agression yi vol yi dafa gëna yok yokk. waaw loolu la wax yow ah waaw. lool la la wax rek barke alcorane karim man bama gëyé bëre yàgg na. 2016 la gëjë bëre la gëjë bëre ba légui waaw bu bëree bëri am na si làmb ji loolu laa lay wax yow si làmb ji nga nekk xam nga lu si am si làmb ji. léegi ñu ñëw sa carrière lu tax sa carrière jékki-jékki rek. waaw Iba Iba Kane moom lu moom fu ma wax mun naa si wax tuuti mais fu ma waxoo foog mu amaat làmb. waaw mais lan moo waral loolu. waaw loolu laa lay wax déglu déglu waaw loolu la loolu la man la journaliste. waaw day yéegal journaliste day wàcce. waaw man bëgguma tudd tur nag loolu laa lay wax Iba Kane. dëgg la xam man yàgg naa si si làmb ji. waaw yàgg naa si làmb ji depuis 2004. Hmm. ba léegi maa ngi si làmb ji. deux mille kii bi di jot. Hmm. lay kii euh, lay mot vingt ans. vingt ans musuma yàq làmb. Hmm. musuma si dugg yàq làmb. Hmm. si gars yi la rek gars yi ñoom ñoo may wax lu nekk. man sama sama làmb li ñu may fay. Ah. suñ ma ko fay avant may dem stade yëpp laay may waat doomu aadama yi. dëgg la su ma jugee si làmb ji. waaw avant ñu may fayal sama lërika. am na ñoo xam ne dañ may topp seen xaalis yoo xam ne dama leen ko ameel. waaw pour dama leen a leb pour dóoleel waat ko si sama sama làmb. su ma joree sama résultat si nit ñi laa koy. laa koy defar wallaay def di agressé di def yenn affaire yi loolu nekkul si man. kon nañu doon jiñ tamit agression. non non non non non non jiñ ñu agression comme loolu lañ ko doon waxee quoi. xam nga bàcc mooy ànd ak kii nangam sàngam loolu laa lay waxee quoi. mais mais est-ce que est-ce que mën nañu léegi ñëw sa départ bu bëri bàcc la moo ko dugal si làmb est-ce que mën nañu xam lan fan ndax da nga ko nàmp wala la moo la dugal. damaa damaa mën a bëri waa Pikine yëpp xam nañ loolu. waaw léegi instant yii moom bëgguma tam bëggatuma wax di tudd. tuuru mais bu nekké Pikine ma la wax fi nga déggoo waxon na la ko waxon na la ko ay temps sax waaw maa la ko waxat fi nga dégg li ma bëri Pikine benn mbeur bëri ko Pikine Pikine lu toll ñep hmm. luma def ci lamb li hmm. ci si bëre li ma bëre hmm. benn mbeur mbappatu ko barki alcorane kan wax ñu sa jaar jaar bu waaw man kay suma suma jaar suma jaara dama ma ko damay damay delluwaat rek ginaaw la lay wax quoi 4 5 mbappat yooyu jaar rek ñu ñu ñu pousse après dugg ci lit avec frappe taw la ci wax ma wax la ñaata mbappat la jaar dama ci si wax ñaata mbappat jaar jaar naa Mbappé du Parcelles. waaw. jaar naa Mbappé du Jules Balde. waaw. jaar naa Yaraax. waaw Yaraax. kon ñoom booy boobu di bëre sax loosoo. waaw mu may dégg nii jaar naa ko ñoom bëre ba daan ñëpp. Mhm. jaar naa yeneen nag yeneen. Mhm. li ma lim dafa bëriwul quoi. li ma bëri si Mbapat kenn bëriwu ko Pikine maa la ko wax nii nga dégg ko mbëri ko déggee ne ah kii li ma wax ni dëgg la. barke mhm. alxuraanu kari. mbooloo bi foofu la la commencé toog. waa damaa yàgg bëri nag xam nga seeraas. Seras lu mu toll ñëpp. Hmm. Seras ay géant rek booy wër géant booy wër géant. waaw demal Seras. Hmm. Seras la ñëpp ëppee. Hmm. mbëri ñu ngi foofu. comme ni ma ko doon waxe ay temps ñoom ñoom Tyson. xam na baxaw chaque jour mu ngi ñoom Baboy. waaw ñoom Pape Cissé. ndeysaan man damaa nekkoon booy. waaw nekk xale bu ndaw. di leen seetaan ni ñoom ñi ñoom ñi bëre. waaw ma fay bëre di bëre di bëre bu bëre ba ba jaaxal waa. wax c'est moo tax ñu tuddee ma Bathie Seras damaa mën a bëri damaa mën a bëri nag dama lay wax rek uh-huh. yàlla nag yàlla mooy tegaate lu ko neex yàlla mooy tegaate jaamam lu ko neex uh-huh. yàlla mooy tegaate jaam lu ko neex damay nangu yàlla li ma teg yëpp uh-huh. dama si sant yàlla yàlla rek moo mun a teg li li nekk si man yëpp yàlla moo ko def si man li ñuy wax ci Bathie bëriwul ak nangam sangam yàlla moo ko def si man yàlla bu bu bu neexoon yàlla suba wala gannaaw suba damay am combat dëgg la damay waat hmm. yàlla dafa def mu mun a bëre. waaw damaa bëree bëree bëree ba bëre ba ñëpp xam ne ñoom Fouta Fouta bu Seeraas. Fouta waaw waaw Fouta xam nga. ñoom xam nañ xam nañ ni booy xam nañ ni man damaa mën a. Papa sa kii euh, Tafa Sow. Ah. magu Baboy. Papa Tafa Sow Tafa tamit Sotil Baboy xam na ni man mii. da ngaa mën a bëre. damaa mën a bëre loolu laa lay wax. loolu nag mënu ma ko wax kii Balla Beye numéro un. waaw. taxaw na ne bàcc moo fi mbër ñoom kàddu gi mm-hmm. waaw caaroy géej sam wax nañ ko ah. su ma la waxee ñu koy wax nangam sangam mooy loolu waaw gars yi dañ maa kii daal mooy loolu quoi toj mbapat yi ñëw dugg si lutte avec frappe man ak Cheikh Diop loolu man ak Cheikh Diop bu caaroy géej waaw boobu Cheikh Diop amoon na lu mot ay juróom-ñaari combat xaw ma juróom-ñetti combat uh-huh. juróom-ñetti combat yow moom moo ko daal waaw jox ma ko ma daan ko. nga daan sax mu ne victoire bu la marqué. waaw mu marqué waaw. mooy sama sama premier combat première victoire. waaw coow li gën a bëri. nga jóge foofu dugg fan. dugg si euh, kii yi mu tudd tam nekk gi Khalifa Ngiraan Khalifa Ngiraan. moom. waaw bu métti. Khalifa Ngiraan ku baax. moo nekk noonu sama combat ak Tapha Guèye da see jàpp. ba léegi maa moom ñu dégg déggante. ñu bëri stade Pikine ma daan ko foofu. waaw xam nga. Mhm. loolu laa lay wax rek Ibra Kane xam nga li ngay wax nii bàcc la moo ko fay si làmb ak la moo ko fay. Ah. ma sama làmb yi ma daan ñëpp gars yi dañuy bañ comme Zos nii dama ko daan ñaari yoon laa daan Zos. Mhm. boo xoolee kaset ba léegi ñu ngi koy xool nii. Mhm. Zos ñaari yoon laa ko daan. sama la si kalaaf yi non si kalaaf yi laa ko dóor mu daanu. waaw tëggaat sama combat moom. combat boobu ñetti li jël laam am. moom benn jëli moo ko moom man ñaari jëli maa ko moom. dama koo door wañ boobu bu boobu tuur ma ne arbitre nii arbitre bañ. ma faqaat ko def ko quatre appuis yu leer nañ. te loolu gars yi nee nañ quatre appuis boobu jël la. waaw dos des quatre appuis ba def nii. may sigg di xool arbitre di xool di ko xool gars yi di ko bàyyi muy bëri di bëri ba daan loolu laa lay wax am na yoo xam ne que bëgguma ko wax damaa bàyyi lu bëri dama ko bàyyi wax li bëgg daal instant yi mooy combat. mooy combat ma wax wax. waaw jili ba ma ko daanee dañoo bañ. jili mbay jili mbay dañoo bañ. waaw ma ñëwaat daan Tafa <laughs> gars yi bañ. barki alxuraanu karim. sa combat ak Tafa Gueye stade Demba Diop. naa ko trois fois laa ko daan si combat boobu trois fois. gars yi dañoo dañ di bañ quoi. Ah. loolu nekk mënu ma si dara. te boobu tamit xale laa mënu ma si dara quoi. sa diggante ak Balla Gaye mois de juin stade fees midi midi. Hmm. stade Iba Mar Diop fees man loolu moom mosuma ko. waaw dama koy waxaat nii pour Aziz Ndiaye dégg ko Aziz Ndiaye. waaw waaye maa lay ziare bu wër a wër. waaw di la ndokkeel di la jox sa wàccuwaay bu wër a wër grand bu baax nga. Hmm. mais Aziz Ndiaye moo tëggoon làmb jooju dañ si doon déggante Aziz Ndiaye lu ma si waxoon daal dama bàcc bis mi ngi tey. Ah. moo ko wàtte. Ah. man bëgg mooy wax même su ma bëree su ma bëriwul baax nga. moo tax warumay wax quoi. waaw moo ko wax ne bàcc bis mi ngi tey bàyyi naa tëgg làmb tey bàyyi naa tëgg làmb mais dafa ñëwaat si làmb di tëggaat làmb xam nga daal affaire yi mooy loolu daal moo daal bëgguma wax quoi hmm. ah affaire yi mooy loolu waaw waaw waaw waaw coow hmm? xam nga ma bëree Balla mu daan mu daan hmm. foofu la sa commencé. non non commencé sax yàq foofu. waaw boobu dañ maa dugalaat si. classe si classe bi. nga yóbbu ma bëreeg. Euh, Papa Sow Zos Zos. waaw Zos. ma daan Zos. bëreeg. Euh, Balla Diouf Balla Diouf daan ma. waaw mu bëre ak euh, Boy Seye Boy Seye daan ma. classe boobu te maag Boy Seye ñoo xamante woon quoi. xamante mais làmb instant yii nii mënu ma si wax waaw su ma demee su ma yàlla mayee gudd fan ak wér gu yaram. Ah. ba ma jëm mag tuuti. dinaa wax lii daw si làmb mais instant yii mënu ma wax mm-hmm. waaw. jëlee fa defet waaw depuis depuis du boobu ba léegi laa gis stade. xam wax moo oh, baaxul quoi. waaw loolu moo baaxul. Uh-huh. ba ma bëreeg Zarko ba pare du ma la nëbbale. Uh-huh. lu bëree bëri laa si perte lu bëree bëri bëri samay oto sama terrain lu bëree bëri laa si laa si perte. lu tax nga perte loolu yëpp. mais du ma la wax boo xamul xam nga làmb lu siy nekk xam nga ko ba ma bëree kii ba pare. du ma la ko nëbëree. billaahi wallaahi tallaahi barke alxuraanu karim lu mat 19 euh, sax moo gën sama yaram. 19 sax moo gën sama yaram barke alxuraan kii xam nañ ko ni ñu bëree ak Zarko ba pare. loolu sax jarul ma koy barke alxuraanu karim billaahi wallaahi tallaahi برك القرآن الملقى واحدا القرآن لا يوارد بالله والله تعالى برك القرآن كان بزنس صح مو جن سما يرن لي لي يب أي صح سما كي سما كيب سما لي صح انا صح لي صح برك القرآن الكريم بالله والله تعالى الله برك القرآن الكريم ما ما ما بيرسي ما لو بري بري ما perte sama oto loolu نك جاي كو فور مون فاجو آه. faju القران alxuraanu بالله والله تعالى dañ la mystique. mystique non waxuma la dañ ma mystique man man loolu xalaatuma ko buñ ma mystique soon xam nga yàlla mu ngi may def nii may dund. maa ngi nii di wax temps yii passé feebar naa fi. waaw gars wax nañ ni nekk sama feer man damaa génn wax ko benn journal seen woon damaa ABC wala damaa choléra. te benn médecin waxuma loolu man xaw a ko moo ko wax loolu wax naa ko yenn journal yi ku ko wax moom boo la ko waxee rek. kooku fekkul sama feebar. Hmm. fekkal fekke naanu. Hmm. boo waxee na bàcc dafa nangam sangam xamul lu ma dal. kon mosoo am AVC dara mosul. demal nga laaj ko médecin man maa ngi wax nii may wax. Hmm. kam moo faj ku AVC kay dina faju voilà noonu la demee. maintenant tu es à de tes moyens moyens donc il faut que Bathie Seras ñëw ñëw il mu ànd ak victoire. waaw noonu la loolu la demee nag. noonu la demee barke alxuraanu karim maa ngi koy ñaan maa ngi ñaan promoteur yëpp. waaw. xam nga ñi fi nekk ak ñëpp ak kii garçon meng xam nga maa ngi koy ñaan ak Pape Lou Fall ñoom ñëpp maa leen ñaan ñu tëggaat sama lamb stade bi mën naa koy feesal stade Demba Diop trente cinq mille places la xam nga stade bi vingt cinq mille places man mm-hmm. su may bëree booy ñoo koy feesal booy booy ñoo koy feesal incha allah eh, bal euh. Euh, euh, bal la booy ñaan waaw ah. deux cent pour cent Pikine yow ñu ngi lay taxaw waaw ah, waaw man du ma si dem nekk Aliou moo si dem quoi mais dem naa si ñaar benn yoon laa si dem quoi waaw benn yoon laa si Boy Niang Balla nan nga si lan jàngal nga si def sa woon nga am na loo woon Boy Niang. waaw xam baal Balla dañuy waxtaan rek Balla borom baax la. ku xamul baal la moo xamul. Mhm. moo xamul Balla man xamante na ak Balla Balla Gaye mhm. kii moo ko doon wax Xaadim Ndiaye keroog maa ngi koy seera muy wax Xaadim ma damaa toog ak Balla Gaye Balla Gaye boo yóbbu wër mbër yi baax si àdduna yëpp mhm. barke alxuraanu karim jàppal Balla Gaye maa maa la ko wax lii man du duma duma dem ci benn ginnaaw mbeur di waxal mbeur duma dem ci benn mbeur di waxal mbeur waaw mais Balla gay dama ko xam dama xam. Balla gay borom bax la mais nak bu dul loolu man pigine la deug waaw fi la deug ginnaaw raay. man fi la juddo fi fi la juddo bo jégué ray bi rek. bo jégué ray bi. Hmm. bo jégué ray bi nga jox ñaari koñ ngay dox rek sama koñ ngay yem. fa la juddo fi la xam nga sama gaal fii laa juddoo. te Boy Niang dañ fii la juddoo ma dëkk biir Pikine mhm. muy bëre biir Pikine ma dëkk biir Pikine mhm. ñu xamante maak booy Boy Niang su may conseil kan laa war a conseil su ma sañoon Boy Niang da koy daan da koy daan ba toog si biir yan relation nga mujj am ak Balla te bëre ngeen yan relation ngeen mujj am ay gaañ nañ lépp ay gaañ nañ fu ma romb dinañ dina nekk si jàmm fu ma romb sax moom mooy eret mhm. Balla Gaye moom li may wax si moom borom baax la ko yow Boy Niang seen diggante booy Niang Boy Niang sama lépp la sama feebar bi moom ñëw na fi ñëw di fi chaque jour mu fi ñëw chaque chaque chaque chaque tabaski moom mooy jëndal xar du ma ko wax sax damay ñëw rek xar bi gaara ni man booy ñaaw lan laa ko mën a boo booy ñaaw nu ma ko fay dara si àdduna barke alxuraanu kari loolu laa lay wax nii te am na mbëri bëree bëri ñu ngi pigin di bëre mhm. man maa leen di yàgg di defal mhm. di yàgg yëkk sama oto di leen ko abal trois mois mhm. dëgg la wax moo baaxul Eumeu Sène sama gaayan la sama lépp la. Hmm. Eumeu Sène tamit baax la mooy magum Pikine la. Eumeu Sène hmm. mooy suñu mag la. suñu lépp la Eumeu Sène. maa ngi déggante moom lépp la suñu lépp la daal mooy magum Pikine. Hmm. moo ñu mun a tegaat si yoon xam nga. moom yàlla def na ko ba ñu jël euh, nu mu roi des arènes xam nga. moo ñu war a tette xam nga. tette waa ñu ñun ñëpp. comme ñu siy yem. xam nga mun a jël roi des arènes Eumeu Sène si la bokk quoi. ñoo ko Ama Baldé sama lépp la. lépp sama lépp la. Hmm. ngeen gisee. ama gën naa ko gis nag. Ah. yow yaa may laaj nii quoi. laaj nga ma nga wax. laaj nga ma si. Boy Niang Boy Niang wax. waaw nañ nañ wax ji. nañ wax ji mais ñooñu mooy saxal. waaw li li si sama xalaat daal mooy lenn comme moom Modou Lo ñoo waroon a bëre. Modou Lo dem ba si biir feebar. Ama toog si biir waa CNG woo Ama. Mm. naka yow yeewi nañ la mun nga dem nga jël beneen combat quoi Ama dem nag jël beneen combat. waaw ba mu jëlee beneen combat ba war koo bëre. waaw Modou Lo tam ñëwaat ne moom wér na. ñu ne ko tamit mun nga bëre tam ku la neex ah si Ama la Ama moo bàyyi combat am dafa am ay blessure nangam sangam mais Modou Lô tam mun na jël Boy Niang du dara nekk la muy ñu koy yàqee ñu mhm. muy ñu xamul ñu ñu bëréwul ñu bëréwul ñu bëréwul mhm. ñoo fi nekk di wax naa ay nangam sangam mais ñiy bëre ñun xamante nañ seen biir boo Niang bu bëréwul ak ñëpp kan lay bëre kan lay bëreel daan na géej waay ñëpp Lac de Guiers kese la fa daanu mais Boy Niang kan lay bëre te Ama ak Gris Gris Bordeaux moo taxawoon. Boy ñaa bu euh, war na bëre Modou Lô. dara nekk si loolu dara nekk si waa si wax dara gars yi dañuy toog nii rek. dara nekk si combat boobu sax. waaw bu dul loolu man ak Modou sax du ñuy déggante man Pikine laa dëkk laa la Pikine. yow Modou Lô ngi. dañuy déggante. yow moom barke alxuraanu karim maa la ko wax ni barke alxuraanu karim loolu dañ koy fekk Lac Rose wala yéen non non non dañuy déggante si kaw kóol la ñuy déggante nii mosuñu gisante nii. te ko. waxoon naa la ko ay temps. waaw maag Modou Papa Sow toog maag Modou Lo bokk nañ ñuy lekk. bokk nañ lekk bokkati lekk. Uh-huh. bokkati lekk bokkati lekk loolu laa lay wax si Modou Lo. lan nga mën a wax si Modou Lo si wàllu mbër. waaw Modou mbër bu xañal mbër bu xañal la. dafa xarañ dafa xarañ. Uh-huh. te dafa mun a bëre. damaa yàgg a toog ak Modou Lo. damaa yàgg damaa yàgg a toog ak Modou Lo. Ah. damaa yàgg a toog muy demee ay mbapat. waaw maa ah. buy dem mbapat foofu lay jógee na maa ngi dem si mbapat. bu ñëwaatee lan deme day moo daan mbapat bi yëpp moo ko moo daan mbapat bi. ma ne booy bi booy bi mën a bëre la. temps maa ngi ay gaañ nañu woon quoi. waaw ah, la demee quoi. boo ñaa amul ku lu mu la lu ndox mënul yëngal moo la boo ñaa amul ko mu yëngal Balla <laughs> kooku mun la yëngal moo la làmb daal yàlla mooy dogal a ah. loolu laa lay waxaat ah man li ma gëm loolu laa lay wax yàlla mooy dogal lu war a am si kaw suuf eh. gars yi nanguñu dégg affaire boobu gars yi nanguñu koo eh. lu am si kaw suuf eh. yàlla moo ko dogal gars yi nag buñ bañee ñoom la si ñoom la rek ñoom ñoo bañal seen bopp mais yàlla mooy dogale man loolu laa gëm sama àdduna ba ma nekkee booy ba léegi man loolu laa gëm loolu moom waaw loolu moom moo may li barke alxuraanu nekk yàlla la comme ni ma koy waxee nii rek mhm. ba ma jugee si làmb ji ma jugee woon nii <clears throat> accident naa mhm. lu nekk bu neexoon yàlla tey yi may toog nii du wax ba ma feebaree gars yi ne bàcc mënul wax bàcc dafa kii naan na sax am nañu bëri dañu ma fekk dañu ma fekk si sama sama gàlle dañu ma fekk ma taxaw sama gàllee ma taxaw di wax ak nit gars dañuy romb seen oto dañuy freiné seen oto hmm. kii ka la bàcc man leen waaw man la ñu ne ma loolu lii lii mënul nekk lii mënul nekk man leen lan la ñu ne ma taxawal ñu photo la jox la cinquante mille man leen lu tax ngeen may photo di ma jox cinquante mille lan la ñu ne non dañ lay photo bu ñu defee ñu yóbbu ko si suñu le ñu leen bàccee ngi nii li ngeen di wax si bàcc yëpp ma léegi sax am na ñoo xam ne naan bàcc mooy loolu waaw loolu loolu

ah mais avant da ngeen doon gisante. yëpp combat yi mu am yëpp ñoo doon gisante ni. donc ah, kii ñi ñooy daanee nangam sàng góorgóorlu. Hmm. maam ay gars yi nañ. Hmm. barke kan dañoo yàgg a si néeg. du tey du suba mënu ma wax affaire yëpp. Hmm. sa diggante Ada Fass xam nga ko. Ada Fass xaw ma ko si làmb ji laa ko xamee. noo ko gisee. mais Araxas dara <laughs> xamuñu ko xamuñu Araxas non non mënuñu wax ci Araxas dara dëkkuñu mu ak moom dëkkuñu <laughs> waaw yow lay wax am Araxas da nga am Araxas yow da nga koy dégg barki alxuraanu karim ah. billahi wallahi tallahi ah. benn combat laa gis ma xam ni comme gars yi ñoo ko lu ma la waxee journaliste yi ñooy siiwalaate ñoom si journaliste yi la si euh, combat mais xam la benn affaire xam nga kii lamb lu lamb li ko journaliste yi joxele moo baaxul. mais Ada Fass keroog bu ba mu daanee bu daanoon kii euh, Zarko. waaw waa lamb ji ñëpp a yëg ni Ada Fass. daan na ñëpp a koy yëgandoo. mais Zarko dafa ndaw ko loolu laa lay wax Ada Fass nak kérok si combat kii bi laa koy doog a xam ak signature yi mu. waaw li mu def. damay moo bëre kii la daan nu mu tudd sax. non Coly Faye de Coly Faye. léegi ba ba làmbam si nañ koy wane muy daane. waaw Coly Faye. si ñaari làmb yooyu laa ko xamee barke alxuraanu karim xaw ma ko. billaahi mbooloo mi ko topp nii mel ni bi sa départ. waaw loolu loolu la démé loolu la démé nag loolu la demee de. léegi damay waxaat benn affaire dama lay wax stade bi daa ndaw. stade bi vingt places la. 25 000 places 12 ah, ah. Zarko am na des supporters moom tam am supporters. ku 12000 12000 12000 rek. le 12500 12500. ça da ngay jël <laughs> <laughs> xaar rek combat eh, laay xaar. non eh, xaar dañ ko jox ba Seras numéro 2. je ngi moom ñu ànd dem na France. ñu ne ko mbot du ko du ko jël. mu daw combat ki xamul Ada fas bu beugé beuré na ñëw fi am ay boy yu mëna a ñu beuré ngi benn ba ci dama jël bu boobaa mu jël ma sax man sax paré na pour Ada fas day mbir mi tay bu ñu la joxoon seet woon jox la avance Ada fas awas lay xaar ne maa bëgg dugg ci wasi lamb ji lay xaar ni mais duma wax ni kenn nañ ma jox avance rek ma ngi sama gal barke alxuraanu karim su mo sax avance sama koy lek barke alxuraanu karim ak mbër mu la doon hmm. avance lay xaar ni billahi wallahi tallaay kon la sa du yomb wa loolu laa la wax du yomb barke yalla du yomb bo fi ñëwaat benen yoon bo fi ñëwaat hmm. neen lay demeete barke alxuraanu karim billaay bu ma la bàyyi te waxoo ci sa bi gaañu ah kii laay wax euh, mooy kii waaw loolu laa bëggoon ubbee sax muy Cheikh Tidiane ndeysaan xale bu baax xale bu baax waaw waaw noonu la demee xale bu baax uh-huh. xale bu am jàmm ñëpp la yéen a jàmm Cheikh Tidiane barke alxuraanu karim léegi nag ma wax la depuis ba Cheikh Tidiane gaañoo ba léegi dama dama ko waroon xalaat di ko xalaat toog naa si lu mot ay 15 jours xam ne génn ma sama gàll dama la ko na wax chaque jours depuis boobu ba léegi nag si laa commencé entraînement chaque jour maa ngi géej maa ngi fii barke alxuraanu karim billaay walaay tallaay dafa fooroon barke alxuraanu karim te boobu booy boobu dafa déggal waa ginnaaw raay mhm. xale sax da koy déranger xale sax bu ko woowee day taxaw booy bu baax moo nekk noonu sama sama booy la waay booy bu mën a bëre bëri naag wuli jël na bëri naag wuli xam nga loolu mooy bëre quoi bëre bëre dafa am dóorante mhm. am jàppante xam nga laal li ma koy waxee mbëri li ñuy bëree nii instant ah mooy loolu da ngay ñëw rek tax def ni sa loxo. xam nga di kii ba arbitre bi suuf lay jox li kii victoire wala joxul kii du victoire. Uh-huh. xam nga mbër yu njëkk yi doon ñu bëree noonu. dëgg la comme Cheikh Tidiane boo xoolee làmbam. waaw Cheikh Tidiane làmbam yëpp da koo xeex. làmbam yëpp da koo. da koo xeex da wooy maa ngi koy ziare maa ngi koy ziare di ziare papam uh-huh. di ziare yaayam. Uh-huh. di ziare famille bi yëpp maa leen di ziare bu wér a wér. sama booy sama xarit. fu mu jugee fu mu fu mu jugee nii yàlla na ko. fu mu jëm nii yàlla na ko gënal fu mu jógee nii yàlla na yàlla oyofal suuf si koom xara ko àjjana firdaws àjjana bu gën a kawe si barke alxuraanu karim loolu laa koy ñaan Cheikh Tidiane looy tàggatoo say fan waaw maa maa ngi nuyu ñëpp di nuy waale ñëpp maa ngi nuyu di nuyu waale Tëyib di nuyuwaale Téyib di nuyuwaale Tafa Burkina di nuyuwaale Babacar di nuyuwaale Sam maa lay nuyu monsieur le maire Waly kaay jàpp si écrit maa ngi leen di nuyu ñëpp maa leen di nuyu di nuyuwaale sama yaay di nuyu wàllu sama baay di nuyu waa équipe bi yëpp maa leen di nuyu incha allah. ana tey ngaa def beeg néew bi. waaw ah, bu bu ma ñëwaatee rek léppay ñëwaat bu ne ne neexee yàlla yonent bi allah rabbi léppay ñëwaat. waaw dëgg <laughs> wax la Pape Ndiaye. vraiment kontaan nañu. di mooy bàcc retouram incha ah, allah léegi loolu laa bu ma jox ma jël. wala avance Ada Fass. waaw yàlla baax na eh. baax ma jël ko ku ñëw rek. Ah. ma jël ko mun a bëre comme ba kii. waaw te na bëre man mun naa bëre. waaw mooy loolu. na rek na ñëw rek bàcc pare na contre Ada Fass dégg ngeen loolu mooy déclaration bi. <laughs> déclaration bi Ada Fass ndeysaan loolu lu du yomb